billahi min alsheytani irrajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalaamu ala ashrafi almursalin xaatimi alambiyai wa imami almursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi وجميع إخوته الأنبياء والمرسلين ومن اختفى بآثارهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi ñu baal ma nag ci qualité baat bi ni muy génne Euh, jagadi la waaye ñu baal ma te ñaanal ma ci hmm. dañu daje tey seet ni réew mi di doxe te ñu bokk ci réew mi euh, di am fu ñuy royee te daan dégg suñu kilifa gu baax nga daan ne xanaa lu ma sañadi sañadi ci réew mi laa bokk muy suñu bàyyi El Hadj ci loolu la ñuy roy ci seen wax la ñuy sukkandiku waaye bu fek ni wax dana doy li fi wax addina yëpp dégg ko mu jëf ko àddina yëpp gis ko mu dox ko àddina yëpp teg ci seen bët kon dana doy waaye santaane yàlla du am fu mu yem ndax ñaan yàlla jaamu yàlla la te yàlla dafa wax ni waabud rabbaka xatta yaatiyakal yaqin maanaam jaamul yàlla ba ba ñu lay tëral ci kuusu bàmmeel ñu yëkkati nuyoo nag di ziyaara kilifa yi nga xam ne yàllaa leen jox cër teg leen ci suñu kanam nuyu suñu kilifa gale ci Louga di Thierno Bachirou Tall ak njabootu Cheikh El Hadj Omar yëpp nuyu Madani nuyu Cheikh Muntaka ci ca Tuuba mënoon na ni limu mu wax ci fan yi bu ko ñëpp doon déglu di ko jëfe kon kenn mën na bañ a wax te doy la wax jooju ndax boo dee lim ci réew mi ñi baax Ceerno Muntaxa kenn du ci gën a ci mbaax feeñ ci bindam feeñ ci waxam feeñ ci jataayam ah fa tabaarakallaahu ñu yëkkati kàddu nag jëme ci mboolem kilifa yi fi ne Cheikh Mahi Niass ci Kaolack di ko nuyu di ko ziyaara di nuyu Serigne Ndiassane di nuyu Serigne Abdoulaye Thiaw Laye di nuyu kër maam Alaaji Njëgal ca Thiès Muniru Njëgal ah, di nuyu Serigne Thiénaba di nuyu Serigne Cheikh Tidiane Ba ci Madina Gunaas di nuyu waa kër Thierno Baro radiyallahu taala anhu ca Mbuur di nuyu Cheikh Tidiane Niass ca Léona Léona Niassène moog njaboot ga ñu ngi ciy nuyu mboolem kuy kilifa te dëkke Fuuta wala nga dëkke Paal wala nga dëkke Jolof wala nga dëkkee bawal wala nga dëkkee Kajoor képp kuy kilifa diine ñu ngi la ci euh, ñu ngi lay nuyu di la ziyaara ñooy suñu kilifa waa kër Serigne Abba Sall Mansour Sall ci seen kanam ñu koy ñaanal mu yàgg fii te wér te njaboot géeyit yàlla musal leen yàlla na ko yàlla def bijaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa Euh, bàyyiwuñu kenn di waxee nag ci turu njabootu Seydil Hadj Malick tey man mii fi toog Maodo Sy Al Hadj mi ngeen xam muy kilifa xale yi moom waxe ci turam kër Seydi Hadj Malick yëpp nag ma kenn ndax kër Seydi Hadj Malick du ku sant si rek moo fa dëkk bu doon loolu dana xat waaye jaamu yàlla yu gëm yàlla bëgg yàlla am yéene topp yàlla tey sellal ñoo dajaloo ci béréb boobu ni ñu dajaloo ci yeneen béréb yi euh, xew-xew bi xew nag moo di euh, xam ngeen ni réew mi jaaxle am na fi ñu ngi jëm ci at bi jaaxle bi tàbbee ci réew mi ak léegi maanaam jaaxle bi jég dugg na fi te ñu bare yëguñu ko bi muy siiw nag ak léegi léegi mu dem ci at mu di loo xam ne lii ca yàlla la bàyyi ko wàcc si suuf si yàlla it muñkat la te li yàlla nangul yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa dafa mel na nangulu ko woon yonent yu jëkk ndax booba lu waay def rek gis ko ci saa si ah mu mel na waxtaan wi li ci bokk euh, dana xaw a am solo tuuti ndax euh, xaw mu lóot xeet lañu woon yàlla yebal ci ñoom ndaw xaw mu luut mooy góor jigéen ya yàlla yebal ci ñoom ndaw ndaw la wax ak ñoom ñu weddi waxu yàlla jànni ndaw ndaw la teg fale yàlla walbati suuf xëpp ci seen kaw yàlla nag du weddi boppam bi mu yónni yonti yàlla Muhammad ci gàttal sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin kon lu bees am na te def na ko ñaari yoon yàlla wax na ne wala qad karramna bani aadama wa xamalnaahum fi lbarri walbaxri ba aaya ba jeex mu mel na kooku ku yàlla bind nga jóge ca aadama te looloy dox ba léegi cër booba am nga ca wàll waaye bi yonent bi ñëwee mu wax ko ne ko nag ñooña ma wutaloon bi nga ñëwee nag yaa gën a yeyoo cër bi yaag saw ñooñ kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi yéen yéenay tànneef yi ñu jox leen baat mu mel na lii xew ci jamono ak ni jamono tëdde ak ni muy doxe yàlla mi dara umpul atte na ko ni yonent bi bu fekkee ni dañu dem ba ñépp mënuñoo nangoo baax kon na ci am ñu baax boog wal takum minkum ummatun yaduuna ilal xeyri loolu yàlla wax ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñooña nag yàlla tànn na leen ci seen jamono euh, defal senegal loo xam ni cër la bu ñi ko wër ñëpp amuñu ko euh, Sénégal li fi nekk ci mag ñu àgg ca yàlla ñëpp nangul leen ko badi di leen topp barewul ci yeneen dëkk yi ci des dëkk yi ci des daa ci dégg kenn wala ñaar waaye Sénégal yàlla defal na ko sutura defal na ko xéewal ci loolu dajale fi gaayam yu bare ñooñe itam biñ fi ñëwee yàq xewul walla latewul yàq sax ba fi iblis nekkee ba léegi yàq ngi fi waaye ba fi yàlla nekkee ba léegi it ngi fi lu baax a ngi fi eh, ñooña nag yàlla leen beral boppam tuddee leen ni ni addina mën a jaxasoo inna awliya allahi laa xawfun alayhim wala hum yaxzanuun loolu ci ñamu baaxal ñu jox ko seen bopp mu nangul leen ko mosal leen ci boppam ñooña la ñu doon ñaan yàlla yàlla nangu na ko ba defe naa ne nanguwaale na ci luñ ko ñaanul ñaan nga nangu ko it barkeel moo tax yu bare bare bare ñu mucc ci bu ngeen seetee histoire Afrique li fi xew-xew ci tuur deret ak jàkkaarloo ak jàmmaarloo yàlla musal na ci Sénégal senegal mësu ci bokk te yàlla bu mu ci bokk yàlla nañu yàlla yokk musal du tere nag ñu sant ko ci nag sant ci yàlla bu baax ci sant goo xam ni duñ ko mën a matale waaye dañu koy ñaanaat mu wuutu ñu ci boppam santal ñu boppam sant gi war ci moom ndax li ñu am ci jàmm ak néew di ko xeeb jàmm du doy loo ci am lu mu bare bare du doy jàmm rek la nit mën na dunde dund gu teey te yàlla nee na ku ma sant rek ma dolli la kon yàlla la ñu yàlla di dolli yàlla na ci jàmm bokk ak mucc ak sutura ak juboo mu mel na réew mi am na lu fi wàcc lu fi wàcc nag yàlla nee na li fi wàcc yéen a tax mu wàcc fi mu di balaa bii fi wàcc ñu di ko tuddee pandémie tur tur wu nekk tudde nañ ko ko waaye jëmm ji kenn mënu ko wane bi nit ñi bëgg a rey seen bopp lu ne ñu dugg ca docteur yi di werante ñii di weddente lu ne am ñu naan jàngaro la ak du jàngoro yàlla wàcce na fi jàngoro jàngoro ji ñëpp teg seen bët mu jaaxal ñépp ci gannaaw rekk képp kuy de marché ragal nga jënd jén lekk ko lee nga ndax feebar bi daloon ñi daa feebaroon ci géej gi loola moo di feebar feebar jàngoro lay doon am fu mu feeñ ci yaramu doomu aadama ñu xam ne garab gii lañ cey def mu faju loola yàlla doxale na ko fi lu ñu ko mën a taawile moo di lii mooy feebar lii am dal ci géej gi ba ñëpp jaaxle ci lii lan la ñu seet seet xamuñu lan la ñu ni du ci ndox mi du ci jën yi du ci feneen fan la jóge ci yàlla la jóge ndax jàngoro feebar yépp jaamu yàlla lañu waaye la ca yàlla wane moo di wér na ba ñu fàtte ko ñëpp delluwaat nañ ci jën bii nag fu ne la ñuy tuddee tur turu yi lu mel nii nag bu masaan am dafa na wàcc ci benn béréb ñu di ko soow Ebola wàccoon na fi nekk Guinée ñëpp tëj seen frontière choléra na fi sida wàcc na fi yeneen ak yeneen wàcc na fi sida nag li ko wàccee mooy mbon mbon yu paase woon ci jamono yàlla rëbb ko ba alak ña ko doon def ñu delloo siwaat ko mu yàlla saxal ko ci ñoom ba kenn mënu ko fi jëlee ba léegi dañ ci noppi waaye ba léegi sida ngi fi ah, waaye li mujj mooy lii ñuy wax coronavirus coronavirus dañu amoon jamono ñu ni dugg na ci réew mi na ñëpp tëju na ñëpp fegu kenn ku ne jéem a sabablu aar sa bopp ndax kenn mënul aar sa bopp da ngay sabablu lu la aar yàlla lay aaral boppam yow nag da ngay sabablu rek ñuy ñaan tëj jàkka yi tëj jumaa yi lu ne ñu tëj ko ni ñi am ci wuute wuute googu nag feeg jógu fi dox ci réewam li fi yàqu dana bare ay nit dañuy nangu dëgg di waxtaan di nangoo déggante dégloonte déggante su ko defee fu dëgg jóge ñu nangu dëgg googa jëfandikoo ko suñu borom dogal na coow li bare na ci ñu dema dema dema dem banaan lee mu jeex ñu ni fabuwaat na dellu siwaat ñu di ko tuddee deuxième vague te dañuy wax ni euh, il n'y a jamais deux sans trois kon deuxième vague bi yàlla nañ ci yàlla musal troisième vague ngi ci gannaawam am na sax ñu xër ba ne quatrième ngi fi dañ koy tudd nag waaye du tere ñu ñaan yàlla yàlla musal ñu ci jële ko fi mu dem dem waaye ñun ñu des fi jaamu yàlla yëpp des fi jaamu yàlla yi nag ñaanalu ñu jullit ñi bàyyi ñu dul jullit képp ku yàlla bind rek yaa ngi ci biir ñaan gi li yàlla di maye ëpp na ki ko ko ñaan kon bu ca jotee war na ko mën a bokk ak ñëpp yàlla nañu yàlla defal loolu yàlla nag dafa ni wa zakkir وذكر إن إن إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر kenn ñemewul amul pouvoiru poñe kenn ni ko tey nga def nangam waaye boo waxee li yàlla wax jotal la mu la sant ba loola ñëpp dégg ko la ce des nag yàlla nee na bàyyil ci sama loxo illa man tawalla wa kafara fa yuadibuhu llahu adabal akbar yaa nañ ci yàlla musal lii na xeet la ci azab ci mbëggalum yàlla maanaa comp la rek bu yàlla di wane ni mbugal a fi mu rëy mu ko ëpp àggaguñu ci nag waaye ma mosal leen ko ndax ngeen gaaw a dellu siwaat ci man bi ci des mu ni fa zakir in nafaati dikre sayadakkaru man yaxsha bu wax jotee fàttalente jot ki nangoo fàttaliku te ragal boroomam dana fàttaliku la ko yàlla sant mu def ko bi ci des Fadakir Wadakir fa inna dikra e tanfaul muminin bi ci des mu ni Wadakir fa inna dikra e tanfaul muminin ah loolu itam beneen la bu yàlla wax ni bu leen toog rek di nelaw bu dara xewul daraa ngi fi di leen fàttalente te li ñuy fàttalente mooy li yàlla moom ci ñun te suñu lépp moo ko moom waaye am na lu mu ñu may diggante fajar ak tisbaar yàlla may nañu fi ñu dox fi suñu soxla waaye bu fajar jotee ñu jullil ko jaamu ko su tisbaar jotee ñu jullil ko diggante bi ci li ci ëpp nag yàlla may nañu pour ñu defare ci suñu dund ku ci am soxla doxi ko léegi réew mi ñëpp a ngi soow li Seydina Omar ibn Xattaab boo xoon nag ba ñu ko ne ndax dangay daw dogalub yàlla mu ne waaw damay daw dogalu yàlla waaye ci dogalu yàlla lay làqu ji su ma bëggee rëcc ci dogalu yàlla lay làqu ji loolu mu mel na ñun dañu bëgg a daw dogalu yàlla waaye dawuñu ko dañu ko ëppale suñu bopp dañu rus ëppale suñu bopp yàlla di dogal muy dal ci suñu kaw moo tax ñu bare ni duñu tester seen bopp pour xam ndax feebar nañu walla déet waaye ñi feebar bare nañu lool ñii dee it rus nañu ni ci Covid bi la dee bu ñu dee ku dee ni neex yàlla noonu nga dee bala yàlla di bind na bind na ci la bindaale ni ngay dee ak fi ngay dee ak kañ ngay dee kon bu jotee li ci yàlla wax mooy dee googu ngeen di daw dàqu leen dafay daw si jëm si jëm si ci yéen ngeen da wuti ko inna al mawta alladi tafirruuna minhu fa innahu mulaaqiikum loolu moo di ñun dañuy daw dee waaye da dee la ñu daw wuti ko bu kenn bëggul dee waaye dee mënul ñàkk ndax ku deewul di yàlla yàlla rek a dul dee kon kenn ku ci nekk boo dundee te bañ a dee la ngay ragal ca dee mooy ëllëg booy taseeg sa boroom nga préparé ko léegi defar sa digganteeg yàlla te defar sa digganteeg yàlla yombul waaye boo ko bëggee defar jaare ko ci nit ñi ci nit ñi nga mën a jaare euh, ba mën a defar sa ëllëg réew mi nag am na ñu bare ñu fi nekk di taxawaalu ñoo xam ni ñii buñ la yelwaanee doo leen sarax bu ñu waxayoo doo leen wuyu waaye bare na ci ñoo xam ni ñii seenug doyadi googu ñu di moo yërmande yàlla ci biir jaam yi ndax yàlla ñaar la sàkk sàkk na waayam ju baax ju ko jaamu may ko la mu koy may wane ko ñëpp xam ko mu def ko ci xol yëpp ñëpp topp ko loolu miin nañu ko ndax ku ne am nga sëriñ am na ñoo xam ne ñii yàlla sàkk na leen def ci ñoom li ñu def ci ñoom waaye amuñu yére yu ñu sol amuñu dàll yu baax jëmuñu fenn da ngay taseeg ñoom rek waaye itam nag du waxtu ne nga mën a taseeg ñoom Euh, dafa am jamono ay nit yoo xam ne ñu nga woon am ci ku siiw ku ñu wax bàcci jaxate bàcci jaxate su bëccëgee mu fab xeer sànnente xale yi su kenn du ko gis benn nit di dox guddi dem ci wetu armeel ya fekk ko mu toog ci biir armeel yi solu solu yére yu baax nit ñi ni ñu bëggee baax ak ni ñu bëggee baax mu wër di ko wër di jaabante amee kurusam ci booru booru dex yi pour bëgg a xam kii kana baa ci jaaxate fa tox su mu taxaw ma ne ko kaay mu ñëw mu ko toogal mu toog ci kaw bàmmeel yi mu xam nga ma mun ko déedéet mun ko ah kay xam nga ma kay mun ko ah, xaw ma la de mun ko mën a bàcc jaxate kooku tiit bàcc jaxate ban mu ne ko bi nga xam muy sànnente xeer ci mbedd mi su bëccëgee ma sànnente xeer su guddee ma fanaan ci sama borom léegi nag waxtu wi ma war a génn àddina jege na ndax nit gis na ma xam na ma te man bu ma feeñee rek dee léegi nag yaa ma gis boo ko yëglee ba ñëpp yëg ko dinaa génn àddina soo nee patt nag kenn bañ ko xam dinaa fi yàggaat góor ga dem toog toog toog toog ba mu yàgg mu ni nattu la ci man ma gis nitu yàlla bu ñuy doya dal may ragal dee ba bañ ko wax daal di wër ndar yëpp yëgal leen ko ni leen bàcc jaxate du dof waliyu la nitu yàlla la bàcc jaxate ñëw ci moom nuyu ko ni ko mbir mi kat siiw na am duma la fi bàyyi yow mi ma feeñal du ma la fi bàyyi talaata laa la ngay dem dama la yóbbuwaale góor ga ni ko ndokk mu ma gënal dajeeg yàlla mu ni ba ñuy toroxal sama jaam bi nga xam ko te waxuloo ko loolu yëpp jaar na fi mbokk yi bañ guddal wax ji moo di ci turu njabootu Seydi El Hadji Malick radiyallahu taala anhu man ma jógee Tiwaawan démb barki barki démb ñoom ñëpp ñu d'accord ci benn kàddu ni ma kenn ku ci ne war na wax waaye naa leen jëlal seen kàddu jotalal leen ko seen mbokki jullit yi seen mbokk senegal yi ñu ñu dégg wax ji ñuy wax ñu wax ni nañu ñaan yàlla nañu delloo suñu bopp ci yàlla ñaan ko fi mu ne amul benn nit bu am kàttan wala nga bare alal wala nga am baat wala nga am doole ba mën a jëlee lii fi nekk te yàlla àndu ci yàlla rek ko fi mën a jële yàlla it buntam tëjuwul tàllal ko loxo ñaan ko toroxlu ci kanamam wàcce sa bopp jéggalu ko loo yëg ak loo yëgul ndax nit li mu def ak li ñu def mu fekkee ko li mu wax ak li ñu wax mu dégg ko yëpp am na ca part de responsabilité te nit mooy yàlla du du du action bu nit di jóg rek def ko mu tudd mooy yàlla balaa tudd mooy yàlla fokk mu xalaat ko lépp loo gis rek ci xalaat lay tàmbalee kooku moo mooy yàlla la euh, xalaat yaa ngi fi ci dëkk bi xam ngeen ni at yi passé li fi jógee li fi jógee ci wax wax yu ñaaw li fi juddoo ci wax yu bon li fi juddoo ci saaga li fi juddoo ci saagaante ci ay mukallaf yoo xam ni tey bu senegal doon jàng ñoo ko war a téye ah bu ñu demee bay saaga ci réew mi kenn dootul xam foo nooy def foo jëm ah nee nañu docteur bi la war a faj bu feebaree bu feebaree yow nga war a dee yow mi feebar te dafa am docteur bu nekkoon njaareem ma sa téléphoné tiwaawan ci man mii la yem ni ma foofu kër Serigne Abdou ma ne ko waaw mu ne moom laa soxla woon ma ni ko dafa sore téléphone bi mu ma yónni la ci moom ma ne ko waaw mun ma waxal ma ko ni ko góor gi Alioune Tall baam Bambey dafa feebar ñu indi ko njaareem feebar bi nag yàgg na bëgg na ko gis waaye boo ba léegi gisu ko te góor gi Alioune Tall tey ci guddi la war a dee ma ne ko loolu duma ko wax sëñ bi ndax deewu Alioune Tall nekkul ci sa loxo mun ma kon su dee na nga tudd ma wax ko mun ma kon su dee ci yow la ma ne ko baax na waxuma dara sëriñ bi waaye ma topp ko rek ba mu ba muy tëj di tëdd ma soo taxalikoo moom ba mu xëyee suba teel it ma ñëw too kafe ga mu doon naan desidoo man la ko may ni ma dama bëgg a dem njaareem seeti Aline ndax dafa feebar boobu ba léegi may waaj xanaa kon deewul ci guddi gi mu dem ba midi di jot mu dellusi ma daw ñëw nuyu ko ba noppi Papa Alioune Tall na mu def mu ne ma tànne na yàlla baax na moo ñu gunge ba ci bunt ba moo gunge ba ci bunt ba ma xanaa kon deewul li docteur bi waxoon amul mu ne patt ba mu mu ne ma yàlla mooy Karim ku jox sa bopp ku dul yàlla sa wàcc nga ko alintaalkat docteur ba ko doon faj deena bii li sëñ ab dooma ko wax ñu xam ni kon yàlla amee nit ñi bind leen bind nattu yi ak dogal yi waaye it bind sabab yi moo tax mag ñi buñ daan naan doomu garab sax buñ ko yëkkatee ba ni nii fokk ñu tàggu yàlla soogaa naan garab gi yàlla maa ngi naan kii damay sabablu kii duma faj jaamay faj Cheikh El Hadj Abdoul Aziz mii ñu taxaloon dëkk ak moom mu jur ñu njabootee ñu diggante fu muy tàllale loxo di ko jox nit di ko nuyu sax liñ daan dégg ci waxam ci suuf loxo bii ma tàllal di ko jox nit ki yàlla na jëmm yàlla rek tax bu jógee dox wut si la loolu lay wax tànk yi may dox yàlla na rek yàlla rek tax kon ñun lu ne gis nañu ko bu ñu sàgganee ci ñun la ñoom mat nañu eh, matal nañu wane nañu jàngale nañu wax nañu ñu dégg Sénégal nag li ñu gën a mën weddi weddi la ñu gën a mën waaye li fi nekk fokk ñu dellu ci yàlla li ñuy delloo ci yàlla barewul dañu ni nañu saraxe sarax ci liñ ci tudd jafewul barewul kilo ceeb kilo suukar liitaru dëwlin ñett yi kilo ceeb kilo suukar liitaru dëwlin boroom kër gu nekk na ko def ah tey nag bu diisee ci yow nga ni cëpp Tiwaawan baa nga ni cëpp Tuubaa daa fa joxe lu ko ëpp kon jox ko jaamu yàlla bu ko soxla wuutu yàlla ci moom joxal ko ko ko mu mu dalale ko xelam yàlla dalal sa xel musal la fonk waajur yi teral leen jox leen li ñu am ndax yàlla ba muy dénkaane waajur boolewu ci yonent boppam la wax boppam la wax ah dafa wax ni wa qadaa rabbuka allaa taabudu illaa iyyaahu wa bil waalidayni ihsaanan wa bil waalidayni ihsaanan fu mu ko tuddee rek ihsaan la ciy teg teg na ci wa abudullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil waalidayni ihsaanan teg na ci wa wassayna al insaana biwaalidayhi xusnan xamalathu ummuhu wahnan ala wahn kon teral waajur yi waaye terlente ci suñu biir kenn ku ci nekk na xoole moromam yàlla teral ko wax nañ ko keroog ci Tiwaawan ni ñun dey ku ci nekk ñu ngi lay teral ngir sa waajur waaye yow teraloo kenn koo gis rek defe ni moo la war a jox moo la war a simil dal moo la war a toogal ci suuf loolu mi ngi ñuy dal te loolu ak cànkute la ci ñun seytaane nag mooy liggéey mooy dugg ci xelu nit ñi bu kii nangoo lii mënu ko ko tere mu ñëw yow nangu loola ko nga nangu ko waaye yonent bi la mu wax alxalqu kulluhum iyaalullaahi ku gis njabootu nit di ko teral boo gisee njabootu yàlla war ko teral nañu wormaalante yërëmante rusante euh, jàmm mayante jàmm ñaanalante yàlla ñun ñëpp ñu bokk ko bi ci des nag moo di gannaaw sarax yooyu ñu tudd ñett rek la kilo ceeb kilo suukar liitaru dëwlin boroom kër bu nekk na ko génne jox ko ko ko aajowoo ka mu tane mu jox ko ko ngir jëmm yàlla boo ko ko dee jox nag bu ko bu ko bu xeeb jox ko ko ngir yàlla ni ko am yàlla jox la mu nangu ngir yàlla soo defee bu nangoo ngir yàlla yàlla nangul la ndax yàlla ngay jox Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz Sy radiyallahu anhu dafa am bés ca ay numaat yi mu jox benn nit xaalis ñu ngi toogoon ñu ngi toog ci perron bi nii ni ñu ni ah seen mbir ki mu jox xaalis bi naan kat sàngara la dafay naan man ma ñëw ba ci moom ni ko papa gars yi de dañu wax ni euh, ki nga jox xaalis dafay naan mu ne ma naan ma ne ko waaw mu ne ma a ah, man de ki ma jox du naan ma ne ko ah loolu la gars yi wax mu ne man loxo yàlla ci loxo yàlla laa teg yëguma benn loxo ci loxo yàlla laa teg li ma joxe ci loxo yàlla laa ko teg loolu kuy def ngir yàlla dangay ngay yëg ni yàlla ngay jëflanteel waaye la ngay def na bu ko naw ndax boo wanee yàlla li nga ko defal mu wan la li mu la defal yaag la nga ko defal daa ngeen dugg ci biir la mu leen defal kon lu defal yàlla na wéet jooy ni lii ma def dëppoowul ak li yàlla yeeyool booy defal yàlla na sa cër yëpp def na sa xol def na sa xel def na sa xalaat def na sa yéene def na sa lépp na def gannaaw loolu ñu gàttal waxtaan wi moo di ñaan gu ñu war ñaan ñaan gi dañuy jàpp ba set julli ñaari rakk jublu penku nag julli ñaari rakk ndax kuy julli fokk nga jublu penku boo boo noppee nga toog sa xel na nekk ca yàlla xam ni moom nga toogal nga jox ko sa lépp bañ a xalaat dara def téeméeri astaghfirullah ak fuk ak benn téeméeri astaghfirullah ak fukk ak benn senegal nag léeg nga dégg ku la ni xaw ma naka lañ koy waxee ji wolof kon téeméeri fukk ak benn mooy cent onze wolof yi déggul wolof te dégg tubaab kese nañu jàpp ni téeméeri fukk ak benn mooy cent onze ñëpp dégg ko ku déggul tubaab dégg nga wolof ku déggul wolof dégg nga tubaab am na ñu boole ñaar yëpp dégg leen ah téeméer ak ci astaghfirullah téeméer ci salatu nabi ñu xamal leen ni nag salatu bu mën bu waay mën na ko def ci yonent bi ndax yonent bi li ñu koy jox ci salaatu jëmul fenn fudul ca moom ca yonent bi rek lay jëm bu kenn defe ni boo jàngee salaatul fatiha mu dem Tiwaawan déedéet ca yonent bi la jëm du dem faas du dem feneen ca yonent bi la jëm ah, loolu muy salaatu ala nabi bi salaatul ummi yi mi ngi fi salaatul naariya mi ngi fi salawaat yi bare nañu waaye allahuma salli ala sayidina muhammadin annabiyil ummiyi wa ala alihi wa ashaabihi wa sallim mu jeex nga teg ci yaakaar fii yaa kaafi yaa kaafi ku ko fàtte dafa sa xel ci café ci café boo defee sa xel ci café fàttaliku kaafi kafi yaa kaafi téeméer ak fukk ak benn cent onze boo ci jógee teg ci latif nga jàng latif yàlla te nag barewul 903 nga koy jàng 903 mooy juróom-ñeenti téeméer ak ñett boo ko seetee mooy juróom-ñaari juróom-ñaaru. juróom-ñaaru juróom-ñaaru 129. te boo ko defee mu mel na ci benn jotaay li nga ko waroon def ci semaine yëpp def ko ci benn jotaay. 903 yaa Latif yaa Latif nag waxuñu nga wax yaa Latif yaa Latif yaa Latif yaa Latif génn ci 903 barewul yaa Latifu yaa Latifu yaa Latifu yaa Latifu yaa Latifu yaa Latifu bañ a noyyi ba sa noyyi mënatul dem nga arrêté aspiré yi mu dugg nga respiré noy mu génn waaye yaa latiifu ngay wax ndax barewul su barewoon nga waxee ko neneen waaye comme barewul yaa latiifu yàlla latiifu loolu temps bi nit di sëgg ci téléphone di xool walla muy liir benn ci réseau yi xew-xew mooy gën a yàgg jataayu 903 li ngay xool ci télé làmb jeeg football bi moo gën a yàgg jataayu 903 ci yaa latiif yaa latiifu boo ko defee ba noppi nag bul naan ndox bul naan ndox bala ngay naan na nga nekk ba mu mat une heure de temps une heure de temps yooyu su matee ba nga xam ni mënuloo bañ a naan benn góox lañ la may nga naan ko góoxu ndox benn gorgée ci ñu dégg tubaab te xamuñu luy góox ñi xamul góox mooy gorgée ni lañ ci benn lañ ci ndox rek mu jàll nga taxaw bàyyi ba mu yàgg te nag fa nga ko defee yàgg fa bu fekkee ni farata amul yàgg fa di def sa istixfaar astaghfirullah astaghfirullah ci kaw ni nga defee latif xalaat yi nga ci dugal te bokku ci ndax jaamu yàlla ba mu sotti te xalaatuloo leneen lu dul yàlla yombul ci julli la gën a jafe kon ku koy def xalaatal sa borom fu sa xel demee feneen nga arrêté delloo siwaat sa xel concentré waat ci sa boroom téewaat sa bopp continuer nag dem waaye boo ko dee def nag bul taal télé fayal sa téléphone bëgg ko def téléphone di sone ngay xool ki lay woo kana yooyu àndul ak jaamu yàlla yàlla du seddoo du bokk du lekk desit yàlla moom kenn rek moom dong kot keneen du ko wettali soxlawu ko loo ko def boole koo keneen mu delloo la ko suñ ci jógee ñu def xasbuna allahu wa ni'mal wakiilu xasbuna allahu wa wakiilu xasbuna allahu wa niamal wakiilu nga def ko juróom benn fukki yoon ak juróom juróom benn fukki yoon ak juróom yàlla soxlawul lu bare lu tuuti te sell la soxla xasbuna allahu wa niamal wakiilu soixante cinq fois ci tubaab mooy juróom benn fukk ak juróom ci ci wolof pour ñi dégg wolof ak ñi déggul wolof ndax tàmm nañu dégg li ma la wax nii rek li ah, euh, li euh, euh, mënuma ko compter kon mënu ci wolof xaw ma compter bi ci wolof xaw ma compter bi nangam nangam ñi naan la loolu mu wax mooy ñaata mooy ñaata mooy ñii ni dégguma tubaab ñi la naan mënuma ko wax ci wolof mooy ñi dégg tubaab te comme ñaar ñoo ñoo fi nekk soixante cinq fois mooy juróom benn fukk juróom benn fukk ak juróom bu dee ci tubaab soixante cinq fois ñu def ñaan googu ñaan gi nag gàtt na yomb na barewul waaye bu leen ko xeeb de boo teeralee xasbunallahu wa ni'mal wakiil bala ngay tëj na nga jàng bismillahi irrahmani irrahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufaan ahad waxuñu lixlaas lixlaas lixlaas lixlaas parce que jàng leen lixlaas ñëpp naan lixlaas ñi naan sóoratu di ko def yu kenn xamul du noonu da ngay jàng saar wi mu jeex nga teg ci qul a'uudu bi rabbi falaq min charri ma xalaq wa min charri xaasiqin ida waqaba wa min charri nafaataati fi l-uqad wa min charri xaasidin ida xasad boo ca jógee nga teg ca bismillahi irrahmani irrahim qul a'uudu bi rabbi nnaasi maliki nnaasi ilaahi nnaasi min charri lwaswaasi lxannaasi alladi yuwaswisu fi suduuri nnaasi min aljinnati wannaasi nga jàng ko noonu boo noppee tegaat ci sa beneen salaatu ala nabi tëje ko ko doo ko def benn yoon nag danga koy saxoo danga koy saxoo na ko ñëpp di ko def di ko def di ko def ba mbas mi jóge fi dañ ni dogalu yàlla dara mënu ko fi tere agsi waaye ñaan mën na dajeeg moom di buuxanteeg moom ba yomal xayaam mbas mu mel nii dara mënu ko fi jële lu dul ñaan ak saraxe ak tuub ñaan ak saraxe te loolu yonent bee ko wax ñaan ak saraxe ak tuub bu la yàlla joxe alal nag la koy barkeel saxal ko nga am ci la nga ci bëgg mooy asaka génne asaka ñett yi daal ñaan mooy mooy poñe dogale balaa mooy dogale nattu ba nattu du agsi euh, tuub ak jéggalu ak saraxe sarax nag ña ci gën nga di ko def di ko def loola mooy dindi balaa mooy tax balaa dana la tiim waaye du wàcc ci sa kaw zakat nag asaka li ñuy wax asaka ki ku am alal alal ji nag du du du du du alal joo am rek génne ci asaka am sa fukki junne génne koy asaka déedéet mënul nekk parce que matul nisaab matul nisaab li mat nisaab te amagul at ci yow asaka mënu ci génn lu ci nekk dañ ko réglementé na asaka na alal ji mat nisaab am at nisaab nag am na ñu koy compté ci kuuru kuuru monnaie bi ni mu yéegeeg ni muy wàcce su boobaa dañuy laaj fu cours bi toll nga xam ni mille francs bu nekk vingt cinq francs nga koy génneel fu cours bi toll nag maanaam ba lu tolloog vingt cinq francs parce que léegi kenn toppatootul yooyu ba ñu mën ko xam dëgg-dëgg am na nag ñu mu yitteel ñu di ko toppatoo ñoom am na ñoo xam ne ñi ñoom génne asaka Euh, la la nit ñu jëkk ñi daan wax rek nan lay dundale koo xam ne kii bu neexoon yàlla mu dundal ko loolu am na fi suratu Yaasin boo ko jàngee jàng ko ci joxal dimbaleel diw mu ni nan lay dundale koo xam ni bu neexoon yàlla mu dundal ko ndax yàlla ma gën a yëg ni amul lu mu lekk loolu ñu defe ko noonu xawma ma li ma wax leer na wala leerul leer na maa ngi ñaan yàlla muy wax joo xam ni bi ma koy wax yal na yàlla rek tax su ma ko waxee ba daaneel ko yal na ko yàlla nangu bu ko nangoo yal nañu ko boole ñun ñëpp àddina bi yëpp ku ko nangul ku ko bañal yal na la ci yàlla boole nangul la li fi nekk lëjal ñu ba kenn xamatu ci foo jëm yàlla jële ko fi moom mi nga xamee dara du dox lu dul ci coobareem ak dogalam mu jëleel ñu ko fi waaye mu bàyyi ñu fi nag ñu yàgg fi lool wér ñi ci jot a tëdd yàlla nañu wér jóg ñi mu dalul yàlla bu mu leen dal ñi ci dee yàlla nay seen njëggal ak si yërmande yàlla ci ñoom yàlla yërëm leen jéggal leen boole ñu jéggal boole ñu baalu ndax mu ñàkk la dal taxul naa mën a naagu ni defuloo yàlla dara ku ne def nga yàlla dara mbedd mi ngay dox di dajeeg nit ñi am na ci xool yoo xam ne boo ko dee xool nit yaa ngi cay tooñ yàlla te ni ñi alalu yàlla lañu kon ñu bàyyi xel ci loolu euh, loolu daal laa amoon ci lu may wax euh, di ci yaakaar nag euh, ak sellal di ci yaakaar yàlla nangul ñu ko di yaakaar yàlla may ñu tawfiix ak qabul may ñu njëgal may ñu mucc may ñu wér may ñu dund gu yàgg may ñu jàmm ci réew mi yal na yàlla euh, defar xol yëpp yi bon nag mm, dafa bare waxu góor jigéen yii ñuy wax ni dañ koy jëmale ci assemblée duma ci sore waaye dinaa wax ni daal ña nekk assemblée te lu ñu ne waaw mu wéy ci réew mi nañu xam ni lu ñu ne waaw boo liggéey yàlla dana leen ci àtte loolu bu ñu yeboo xam ko réew mi du réew mu bon réew mu baax la nañu nañu nañu ci maandu li bon nañ ko fi jéem a génne te jéem a xëcc lu baax mu dugg fi moo gën di génne lu bon lu baax di fi dugal lu bon te léegi seetaan bi bare na seetaan bi bare na seetaan bi bare kon nag euh, wax bi wax la ndaw laa lu ñu yónni wa ma rasuli illa al balaaga wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yal nañ ko waxaat yeneeni at